الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall maa leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di sant yàlla sunu boroom bi mu ñu mayee ñu tal ko ba toog fii mën a ubbi téereem bu sell bi jàng ci mu doon yokkute ci ñun ñépp niñ koy faral di defee saa su nekk dañuy ubbi biibal bi téere bu sell bi ñu yàlla sunu boroom jox jàng ci ndax ñu xam lan lañu wax ak ci yan anam lañ ko war a jaamoo naka lañu war a taxawee fii ci àdduna ak yan tànk lañu war a dox tànk yi nga xam ne dana ko neex te dana màggal turam damay ubbi téere bu sell bi ubbi ci kóllëre gu njëkk gi ubbi ci saboor ci aaya téeméer ak fukk ak benn saar juróom-ñeent ba fukk lii la yàlla sunu boroom wax mu ne ragal aji sax ji di ndorteelu rafet xel di ndorteelu xam-xam yàlla sunu boroom di ñu yee ci li nga xam ne lu am solo la mu war a dox sunu digganteeg moom muy ñu ragal ko mu ne ragal aji sax ji ndax moom yàlla sunu boroom mooy aji sax ji képp koo xam ne mës nga ñëw rekk am na foo tàmbalee am na fooy jeexalee wante yàlla sunu boroom amul fu mu tàmbalee amul fu mu jeexee moom mooy aji sax ji mu ne moom aji sax ji ñun jaam yi nga xam ne moom moo ñu bind ci kàttanam nee na dañ ko war a ragal ndaxte ragal googu moom mooy ndorteelu rafet xel te mooy ndorteelu am xam-xam yàlla sunu boroom li ñuy wax foofu ne jaamam ji nga xam ne dafa am xam-xam ki nga xam ne dafa rafet xel mooy ki nga xam ne daf ko ragal dafa ñëkk a sumb ragal yàlla balaa muy sumb leneen dafa jiital ragal yàlla balaa muy indi leneen yàlla sunu boroom di ñuy wax foofu ne boroom xam-xam bi mooy ki ko ragal boroom xam-xam bi mooy ki nga xam ne ci xolam ànd na ceeg ragal yàlla ragal aji sax ji ñu gis ne nag ñun ay jaamam ci àdduna si ñu nekk ak jamono yi ñuy dund ragal yàlla bokk na ci li nga xam ne tumuranke na ci biir àdduna buñ nee ragal yàlla tumuranke na ci biir àddina du wax joo xam ne dañ ko wax rekk sànni dafa nekk wax joo xam ne am na fuñ ko wéer ba mu mën ko dëggal bu ñu xoolee tey ji àdduna ni muy doxee bu ma nee nag àdduna génnewuma benn dëkk sunu Sénégal bi nga xam ne ci laa bokk man pasteur Ahmed Fall fi laa juddoo fi la samay waajur juddoo fi la samay maamaati maam juddoo te fii laa nekk dama ci boole sunu Sénégal boole ci sama bopp bu ñu xoolee Sénégal ni muy doxee bu ñu xoolee nit ñi ci kaw jukko yi wax yi jëf yi dañuy xam ne ca dëgg-dëgg ragal yàlla kon mi ngi tumuranke ci biir àddina rawatina sunu dëkk bu mel ne Sénégal moonte de ñun ñépp koo ci wax koo ci làmb koo ci cuq mu wax tudd yàlla Sénégal ma boole ci sama bopp dañuy tudd yàlla lu bari lu bari lu bari lu ñu yëngal tudd yàlla lu ñu wax tudd yàlla te bu ñuy wut seede itam sax yàlla lañuy indi nekat na leen seedeel nañu seedeel wante bu ñu xoolee jëf yi bu ñu xoolee jukko yi ak li ñuy dégg lépp muy xew saa su nekk ci sunu biir dañuy xam ne ca dëgg-dëgg ragal yàlla tumuranke na fi ndaxte bu ñu xoolee dëkk bi ni muy doxee tey jii dañuy gis ne kóolute amatu fi dañuy gis ne li nga xam ne bari na fi wor bokk na ci di warante li nga xam ne bari na fi mooy kujjee xool sa moroomu nit na yow mu nekk ci bërëb nga nekk ci bërëb nga jóg waxu la defu la nga def ko ab noon def ko ab wujj di ko yàkkal saa su nekk bu ñu xoolee sunu dëkk ni muy doxee wax bu ñaaw bari na fi wax bu ñaaw boo xam ne yenn saa yi danga ko dégg foo xam ne séentuwuloo ko fa woon danga ko dégg ci gémmiñu ndaw danga ko dégg ci gémmiñu mag danga ko dégg itam ci gémmiñu màgget wax yoo xam ne tegganiwul dañ koy faral di wax lu bari biir Sénégal dañuy dem ba nga xam ne sax dañuy woy dañuy fent ay woy di sànnante ay kàddu yu ñaaw sunu biir nga gis ab tuut tànk gis ab waxambaane moo ubbi gémmiñam yëkkati làmmiñam wax wax yoo xam ne ci dëgg-dëgg ku ragal yàlla wala bu doon kat waajooju dañ ko rax dañ ko dañ ko yar tàggat ko ci ragal yàlla wax ju mel noonu du ko wax mukk bu ñu xoolee li ma waxoon sànq Sénégal ni muy doxee tey jii ma wax ko te muy dëgg njublang bari na fi njublang bari na fi boo demee tribunal lang fay fekk attekat yi di ko atte li ci ëpp njublang la jël li nga xam ne yelloowuloo ko moomuloo ko nga def ko moomeel digaaleeg nit dara nga war a sàmm li nga wax nga tëdd ci li nga xam ne moom la la jox nga def ko moomeel tey jii rek balaa may tàmbali sama émission bi maa ngi dégg nit koo xam ne mi ngi seede naan ay suufam la nit ñëw ëpp ko doole nangu ko jaay ko te mënu ci dara mi ngi daw di yéeg ko wàcc mënu ci dara ñu gis ne lu mel noonu lu ko waral mooy ñàkk ragal yàlla moonte de yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu njëkk gi ci kàdduy waare ci aaya fukk ak ñaar ci saar fukk ak ñett ba saar fukk ak ñeent yàlla sunu boroom di ñuy wax naan yàlla ragal ko ay santaaneem jëfee ko loolu rekk mooy nit yàlla ngi ñuy wax naan nañ ko ragal te ay santaaneem ñu jëfee ko mu ne loolu rekk mooy nit jaamam ji nga xam ne ci xolam dafa am ragal yàlla jaam ji nga xam ne day wéy di jëfee santaane yàlla yàlla sunu boroom nee na kooku mooy nit nee na kooku moo am xam-xam kooku moo rafet xel kooku moo yeewu ndaxte kooku kat mi ngi pare ëllëg mi ngi pare bésu pénc ba ndaxte yàlla sunu boroom nee nañu li làqu ak li feeñ yépp dañ koy layoo nee na kon boog nañ koy ragal ragal yàlla yàlla ragal ko ay santaaneem jëfee ko loolu rekk mooy nit bu ñu xoolee jukko yi tey jii ñu gis ne ñeme yàlla moo fees ci àdduna yu bari tey jii doomu aadama jóg daganal ko nekkat mbir mi nii ak nii lay demee te loolu muy daganal loolu mu ne dañ ko war a def loolu mu ne dañ ko war a bokk boole ci si askan yi yàlla sunu borom dàq na lu mel noonu waxuma sax sib na ko wante daf ko dàq daf ko bañ nee na yéen samay jaam bu leen joox mukk dugg ci yu mel noonu ndaxte man yàlla bëgguma ko boo xoolee lii nga xam ne moo yëngal dëkk bi ci fan yi ñu weesu te ba léegi mi ngi fi mooy deretu tuut tànk yi ñuy tuur deretu tuut tànk yi ñuy tuur moonte di ñi koy def ñi ngi fii ci biir Sénégal ñi koy def wóor na ma ne foo leen fekk ñi ngi tudd yàlla ñi ngi tudd yàlla wante am nañu fit goo xam ne ñeme yàlla goo xam ne dañuy dem di tuur deretu tuut tànk koo xam ne tuut tànk la xamul mënul muumiin muumiin koo xam ne mënulul boppam dara koo xam ne xamul dara nga am fitu jàpp ko yóbbu ko tuur deretam xam ngeen ne loolu ragal yàlla nekk fa te askan buy def loolu ragal yàlla nekkul ci seen biir jëmm juy def loolu ragal yàlla nekkul ci seen biir bu ñu xoolee tey jii li nga xam ne mi ngi am ci biir dëkk bi buñ ko doon lim fii ba suba du jeex wante benn boo ci jàpp wala boog boo limee fukk juróom-ñeent yi lépp nekk na loo xam ne yàlla sunu boroom bëgg ko may wax fii li jëm ci njublang nga séq ak nit dara mu jox la kàddoom nga jox ko sa kàddu ne ko kat mbir mi ñu seq danaa ko doxalee nii ak nii mu ne la kat loolu ma la jox lan nga bëgg ma fay la lii nga may liggéeyal nga ne ko jox ma nangam mu jox la ko boo ko wonee ginnaaw fàtte li ngeen waxoon nekk ci la la neex nekk ci la la neex loolu ñàkk ragal yàlla lu bari ñu koy gis ci sunu dëkk bi ba tey jii boo séqeek nit dara da ngay ni bind ay kayit yu wóor yóbbu ko ci bërëb yu bari ku nekk signé lu waral loolu ndax dañ ne gis ne kóolute amatu fi lu tax kóolute amatu fi ñàkk ragal yàlla yàlla sunu borom dañuy wax ci téereem bu sell bi nee na ndorteelu xam-xam mooy ragal ko ndorteelu xam-xam mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy ndorteelu rafet xel te bu ñu gisee ñi nga xam ne yàlla sunu boroom yëkkati na leen ba def leen tey jii ay royukaay naan sama jaam yi xool leen ci ñii li nga xam ne moom la ñuy gis ci ñoom te mu dëggu ci ñoom mooy ragal yàlla gu mat sëkk ragal yàlla gu mat sëkk yàlla sunu boroom di ñuy jox ay yonentam yàlla sunu boroom di ñuy jox nit ñu baax ñi naan ñu xool leen ci ñooñu lu tax man yàlla ma yëkkati leen lu tax ba tey jii ngeen di tudd seen tur lu tax ngeen di tudd seen tur ba tey jii ndax ab ragal yàlla bu wér péng bu nekkoon ci ñoom ñu koy wone ci jëf ñu koy wone ci wax ak lépp loo xam ne dañ ko daan def ñu ciy boole ragal yàlla yàlla sunu boroom di ñuy wax naan ki nga xam ne moom moo rafet xel ki nga xam ne moo am xam-xam mooy ki nga xam ne moo ma ragal ba mu bindee aadama ak awa dugal leen ci bërëb bu sell bu baax boobu tool bi nga xam ne fa la leen jagleeloon ba mu leen fa dugalee dafa wax ak ñoom li nga xam ne nag aaya na leen ko du woon dara dudul ragal leen ma ba lii ma leen aaya bu leen ko def ñu gis na sunu maam aadama ak awa dañu teggi loolu nga xam ne yàlla waxoon na ko def li nga xam ne li keneen wax mu jural leen bugal ndax ñàkk ragal yàlla ubbi seen nopp déglu ki nga xam ne moo doon noonu yàlla muy saytaane tey jii ñu gis ne li yàlla wax sànni nañ ko fële li ci ëpp dañ koy falang fële li nga xam ne moom la ñuy dégg feneen nga xam ne dëppoowul ak li yàlla sunu boroom wax ñu ne kat nañu wéy di jëfee lu mel noonu yàlla sunu borom nañu déedéet sama kàddu mooy mës a féete kaw bépp kàddu amul benn kàddu goo xam ne dana féete kaw kàddug yàlla moo tax bu yàlla waxee kon ñun ay jaamam ñu war ci ànd ak ragal ak tiit ba ne kat lii ay santaaneem la nañ koy jëfee moo tax mu naan ñu yàlla ragal ko ay santaaneem jëfee ko loolu rek mooy nit tey jii ñi ngi sàmm li nga xam ne moom la nit ñi wax bind wante li nga xam ne yàlla wax na ko bind na ko te nga xam ne mooy li dëggu mooy li sax mooy li nekk mooy li jub loolu ñi ngi koy jël di ko nasaxal di ko fenatal bañ ci bàyyi xel bañ ko déglu kon mbokki auditeurs yi ma lay ni wax ne ragal yàlla ca dëgg-dëgg mi ngi tummuranke ci biir àdduna te yàlla sunu boroom ci loolu lañuy woo kon ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi nga xam ne tey jii ñu ngi ko tëral ci ragal yàlla ñu déglu tuuti cant
كتير لعمر الشكرات kon mbokki auditeurs yi ñu wéy ci li nga xam ne mooy sunu waxtaanu tey ñu lal ko ci benn ponk muy ragal yàlla kon ñu gis ne ragal yàlla mi ngi tumu ranke ci biir àdduna te yàlla sunu borom mi ngi ñuy woo ci ragal ko ragal yàlla di bunt bi nga xam ne daf ñuy yóbbu ci texe daf ñuy yóbbu ci mucc ragal yàlla daf ñuy musal ragal yàlla day tax sunu diggante ak yàlla sunu boroom ratax yàlla sunu boroom bu ñu jàngee ci kóllëre gu njëkk gi mu wax ak Musaa ci tawreet wax ak moom ci kóllëre gu njëkk gi ci xaaj bi ñu dippee mucc ga yàlla wax ak Musaa ne ko waxal ak sama jaam yi nga jàngal leen li nga xam ne moom laa bëgg li nga xam ne mooy samay say santaane ak li nga xam ne bëgguma ko mu ne Musaa dama lay tënkal li nga xam ne moom mooy samay ndigaale ci fukk muy fukki ndigaale yi nga xam ne mi ngi ci biir tawreet ci biir yo ba fukk yooyu yàlla sunu boroom am benn boo xam ne wax na ko mu am solo mu ne Musaa neel samay jaam yi ma sàkk ñu ragal ma te bu ñuy caaxaanee sama tur mu ne Musaa nañ ma ragal bu ñu caaxaanee sama tur yàlla sunu boroom di ñu jàngal ne jaamam ji nga xam ne daf ko ragal jaam jooju du caaxaanee turu yàlla yàlla ne sama tur màgg na màgg goo xam ne yéen samay jaam waru leen ko caaxaanee waru leen tudd sama tur ci kaw ay caaxaan wala ngeen tudd ko ci kaw loo xam ne du dëgg bu leen caaxaanee sama tur ragal leen ma te bu leen caaxaanee sama tur yàlla sunu boroom mbir moomu ñor ko ba nga xam ne daf ko def ci tawreet ne Musaa waxal ma ko sama jaam yi ma sàkk mu leer ci ñoom man yàlla yéen samay jaam bu kenn di caaxaanee sama tur wante bu ñu xoolee àdduna ni mu bindoo ma boole ci sunu dëkk Sénégal duñ ci génnee sunu bopp dañuy caaxaanee turu yàlla lu bari caaxaanee turu yàlla lu bari nag wala boog caaxaanee turu yàlla képp di tekki ne ragal yàlla nekkul ci yow ngay tudd yàlla ci loo xam ne lu ñàkk fayda la ngay tudd yàlla ci loo xam ne du dëgg ngay tudd yàlla te mu wóor na la la yow lii la ngay wax amul dara loo xam ne lu jub la wala lu dëgg la wante ngay tudd yàlla di woo yàlla di tudd turam naan yàlla kat moo lay seedeel ci mbir mii ci mbir male te mu wóor na la yow lii ngay wax amul dara dara loo xam ne dëgg la yàlla sunu boroom nee na yow ragal ragaluloo ma ragal yàlla nekkul ci yow ngay tudd yàlla foo ko warul tuddee nga nekk ci ay caaxaan di tudd yàlla nga nekk ci sa bakkan topp sa bakkan di tudd yàlla nga nekk ci bërëb yoo xam ne bërëb yu bon la ngay tudd yàlla di caaxaanee turu yàlla boo ko tuddee fii tudd ko fële fu la neex nga ne yàlla lu ñu wax nga ne yàlla te yow yàlla googu ngay tudd nga xam ne moo la sàkk ci kàttanam yaa ngi koy tudd ci sa làmmiñ ci sa tuñ wante yeggul ci sa xol ngay caaxaane turu yàlla yaa ngi tudd yàlla yaa ngi tudd yàlla wante yàlla nekkul ci sa xol toogul ci sa peggu xol jiitalu la yàlla sunu borom ne Musaa neel samay jaam bu ñuy caaxaanee sama tur turu yàlla màgg na turu yàlla yi màgg nañu mu jàngal ñu ko tur yu bari yoo xam ne bu ci nekk am solo goo xam ne am lu muy tekki lu am solo loo xam ne ay xéewali xéewal ay ngëneel a ngi ci biir nga koy jël di ko caaxaanee yenn saa yi sax nga def ko woy woy yoo xam ne woyu woyu ñàkk fayda boolekaak ay fecc yoo xam ne fecc yu ñàkk fayda di tudd yàlla di tudd yàlla boolekaak fecc boole kaak yenn yi nga xam ne ca dëgg-dëgg jaaduwul ngay tudd yàlla di jëfandikoo yu mel noonu yàlla sunu borom ne Moussa waxal ma samay jaam ne leen bu ñuy caaxaanee sama tur nañ may ragal ku ragal yàlla doo caaxaanee turu yàlla ku ragal yàlla doo caaxaanee turu yàlla ku ragal yàlla war nga tiit sax di ko tudd foo xam ne du bërëb bu sell war nga tiit sax di ko tudd ci loo xam ne ay caaxaan la wante ñu gis na sunu dëkk bi ñu nekk loo wax ñu tuddal la yàlla yàlla sunu boroom ne yéen a ngi caaxaanee sama tur danaa leen ko won yéen a ngi caaxaanee sama tur danaa leen ko won te bu ñu gisee ci téereem bu sell bi yàllaa ngi ñuy jox ay firnde yu wóor ay jaamam yi nga xam ne dañ doon caaxaanee turam yàlla sunu boroom won leen ko fa saase ñu gis ko ñuy caaxaanee turam yàlla sunu boroom won leen ko fa saase ñu gis ko mu am ci buur goo xam ne ñi ngi koy wax Hérode mu woo ñi nga xam ne yilifoon na leen yépp toogloo leen sol yëreem yi gën a rafet tàmbali di wax di caaxaanee turu yàlla ba nit ñu yuuxu naan kii de yàllaay wax yàlla sunu boroom ñu ne ca saase la wàccee li nga xam ne daf ko mbugal ba sax yi di ko lekk yàlla sunu boroom ne jox laa leen loolu mu doon ab firnde ci li nga xam ne mën naa ko def ci ñiy caaxaane sama tur kon mbokki auditeurs yi nañu bàyyi di caaxaane turu yàlla yàlla nee na fukki ndigaale Moussa lépp dama koy tënk ci fukki ndigaale muy fukk yi nga xam ne moo gën a am solo mu ne Moussa waxal ma ko samay jaam mi ngi ci tawreet ci fukk yooyu benn génn ci muy lan bu leen caaxaane sama tur jëmm ji nga xam ne dafa ragal yàlla kooku du caaxaane turu yàlla mukk yàlla sunu borom di ñuy wax naan ci téeréem bu sell bi nee na ki nga xam ne daf ko ragal dafay moytu lu bon bu ñu xoolee ci kàddu yu xelu yi ci aaya juróom-ñett saar fukk ak ñett ragal yàlla moytu lu bon ragal yàlla moytu lu bon kon ragal yàlla mooy nga sori lu bon ragal yàlla mooy nga daw lu bon bu dee nag da nga ne da nga ragal yàlla di tudd yàlla te fuñ la fekk yaa ngi ci lu bon ci kaw wax ci kaw jëf ci kaw xalaat kon ragal yàlla nekkul ci yow yow kay yàlla yàlla ci sa làmmiñ ci say tuñ rek la yem wante ragal yàlla nekkul ci yow ragal yàlla moo waraloon yonent yàlla yuusufa ba mu nekkee ci kër kilifaam ci biir misira nekk waxambaane gu rafet soxna kilifa bi di ko xool di ko xool bés bu nekk mu topp ci ginnaawam naan ko kat sama boroom kër nekku fi yaa wax rek yow rek a fi nekk kaa ñu def nii kaa ñu def nale yuusufa ne ko sa man lu mel ni duma ci dugg mukk ndax dama ragal yàlla ñu ne bés yàlla dañu nettali ci téeréem bu sell bi ne dafa daf ñépp dañu génn ci kër ga dem mu des lu dul yonent yàlla yuusufa ak soxna si soxna si ñëw jàpp ko ne ko tey jii li ma namm ci yow danañ ko def mu ne ko man de dama ragal yàlla te ki nga xam ne mooy sa borom kër dama ko wekk dama koy wormaal kon lii nga may woo duma ko def mukk yuusufa wone fa loo xam ne lu am solo la mooy foo nekk mu am seedeeg mu ñàkk am seede dee fa wone ragal yàlla fépp foo nekk mu am ku lay xool ak ku la dul xool dee fa wone ragal yàlla mu am ku la xam ak ku la xamul dee fa wone ragal yàlla yuusufa ne ko man de fii ñu nekk tey jii nga xam ne kenn nekk fi lu dul man ak yow képp du tax ma fekk si la ci li nga xam ne yàlla sama borom bugg ko man de dama ragal yàlla duma def lu mel noonu mu jural ko sax ñu mujj ko tëj kaso ndaxte ndaw si da koy sosal ba borom kër ga dellusee mu ànd ceeg mer ndax li yuusufa gàntal loolu nga xam ne daf ko ci doon woo mu ànd ceeg mer sosal ko boroom kër ga tëj ko ay ati at yuusufa nekk ci kaso gi nangu dem ci kaso wante nee na damay ànd ak ragal yàlla ay santaane ma koy jëfee donte sax dana ma yóbbu ba ma dem ci kaso donte sax sama bakkan dana ci des yàlla sunu boroom di ñu wax naan ragal yàlla gudd fan ragal yàlla gudd fan ragal yàlla texe ragal yàlla gudd fan jaamam ji nga xam ne daf ko ragal jaamam ji nga xam ne mi ngi bàyyi xel ci yàlla ci lépp lu muy wax lépp lu muy def lépp lu mu seq ak mbokkam jaam jooju yàlla sunu boroom nee na kooku dana gudd fan dana am wér gu yaram te danaa ko jox lépp li nga xam ne soxla na ko yàlla sunu boroom moo ko diggee nee na ñi nga xam ne dañ ma ragal danaa leen may gudd fan te ku yàlla may gudd fan nga ànd ak wér gu yaram ku yàlla may gudd fan dana la jox itam lépp li nga soxla ngir doo soxlaal kenn doo ñaan kenn doo laaj kenn yàlla sunu boroom ne ragal yàlla gudd fan ku ma ragal gudd fan kon yàlla nañu bokk ci ñooñu nga xam ne dañu ragal yàlla ku bugg gudd fan ragalal yàlla ragalal yàlla looy wax looy def nga bàyyi xel ci yàlla mi nga xam ne moo la sàkk amul loo xam ne làqu na ci moom amul loo xam ne réer na ko amul loo xam ne nëbbu na ko lépp la gis lépp la xam te képp koo xam ne ragal nga ko ci dëgg-dëgg dana la ko won dana la ko fay yàlla sunu boroom di ñu wax ci kàdduy waare mu ñuy wax foofu naan ci aaya fukk ak ñaar ci saar fukk ak ñett ba fukk ak ñeent mu naan ragalal yàlla ndaxte lépp loo xam ne danga koy def muy lu fes wala lu làqu danga ko layoo bés yàlla sunu boroom moo ñu ko wax ci kàddu yu xelu yi ci aaya fukk ak ñaar saar fukk ak ñeent ba fukk ak ñeent mu ne ragalal yàlla ndaxte lépp lu làqu wala lu feeñ loo mënta def danga ko layoo danga layoog yàlla muy lu baax lu làqu wala muy lu xam ne lu bon la te danga ko nëbb lépp loo xam ne def nga ko yàlla sunu boroom dana la ko fay muy lu baax muy lu bon muy lu rafet muy lu ñaaw yàlla nee na ay jaamam ragal leen ma ndaxte loolu mooy xam-xam loolu mooy rafet xel te nee na nit du dara lu dul ragal yàlla ak ay santaaneem nga jëfee ko kon yal na yàlla sunu boroom dekkil ragal yàlla fii ci biir Sénégal dekkil ko ci sunu xol dekkil ko ci bépp jaamam buy yeewoo fii ci darajey Seydina Issa almasi bi Yeesu Christ seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi di leen fàttali sunu numéro de téléphone di 77 0 74 35 35 77 0 74 35 35 yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci darajey Seydina Issa almasi bi Yeesu Christ te yal na dekkil ragal ko ragal yàlla ci sunu xol wasalaam mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35